jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy topp ci Medina TV ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi di leen ziar ñaanal leen jàmm bu baax a baax waaye sàkku ci yéen Medina TV di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak moom ngir lépp loo xamante ne actualité la ci réew mi ak ci bitim réew ngeen mën koo am à temps réel dañ koy doox kon euh, seet si kon suñu xarit suñu mag Kara Dollé bu ñu ko déggee yaakaar naa ne miin nañ ko ci wàllu làmb waaye rek lépp loo xamante ne actualité la bu réew mi tolloo fii da ci yëkkati kàddoom di ci wax loo xamante ne kenn du ko dindi jotaay la ñuy am moom waaye balaa dara dañ koy bàyyi mu nuyoo ak mbokk internet yi ñuy seetaan ba pare su ko defee ñu woyal suñu waxtaan Kara ñu ngi lay nuyu am mbégte loolu ñëw yee asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu sant yàlla génn di bi ñu ngi gërëm suñuy ñaari waajur ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñu ngi nuyu waa Touba di nuyu Murit Tijaan Xaadir Laayeen di nuyu waa Canaba di nuyu suñu mbokku Laayeen yeeg di nuyu suñu mbokku pulaar yeeg ñëpp maanaam fépp foo xam ne kilifa diine ak aadaa fi ñu ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokku catholique yi comprendre nga di ñaanal Sénégal jàmm comme ni may wax chaque jour rek boo yéegee ci gaal bëgg gaal gi mucc da ngay ñaanal borom gaal gi ñu ngi ñaanal son excellence xam nga monsieur le président Bassirou Diomaye Faye li may wax chaque jour rek di ñaanal président Macky Sall xam ne tamit wax dëgg yàlla yàqu fi dara ñu koy ñaanal jàmm di ko wax ne wax dëgg yàlla ak yeneen bi euh, yàlla ko yàlla defal jàmm fi mu nekk def suma xarit suma patron suma doomu ndey Pa Malick Ndour ministre de la jeunesse maa ngi koy nuyu bu baax a a baax te dëgg yàlla ak yeneen bi pétrolier bu neexee ndey ji moo jàpp ci mbagg yi wax dëgg yàlla mënoon na nekk kilifa la xam nga am na ndombay tànk yàlla tegoon ko si loxoom mënoon ñoo di leneen. waaye bu defee dafa wàcce boppam di toogandoo ak man di lekkandoo di waxtaanandoo su dee bougé xool parking bu gën a seer oto mu jël ko luyal ma ko nekk ceeg man wax dëgg yàlla dooleel ma ba nga tax ne wax dëgg yàlla gént bi bu ñu ma avance làmb gi nii mën na leen xaar ba jamono neex kon maa ngi koy sant tey nag tax émission bi neex ala daw dama kontaan da dëgg yàlla gént bi Kara mën nañu wax Kara Kara Kara Kara waaye fi ngeen ma fekk tey léegi ma fekk suma kër suma gox. ma nekk feek ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla gi premier jour bi may njëkk a takk ngeen ñoom ñoo ko takk ànd ak man si ay mbapat ma teg leen coono gu ne tey bu ñëwee ba fas ay soxna ñoom nekk ay responsable yor ay famille maanaam dama ciy bég damay jiital si nuyoo bi assan mbay mu nekk suma rakk ju baax nekk suñ dëkkandoo da yàqu si dara su ma jugee foofu dama si teg Nuuru Mbaye xam nga mu nekk sama lakkal ñu jaar fu ne xam nga li ma lay expliqué Nuuru lekk rek laa ko deful su ma jugee foofu damay nuyu bu bu suma rakk la suma goro la suma lépp la xam nga di nuyu suma jantal booy Malick xam nga di ko wax sowaay bienvenue dalalal jaamoo xam nga di la nuyu di nuyu sa gars yi nga nekkal di nuyu ñoom ngedee xam nga ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Adama Coulibaly nga xam ne jaay na karité jaay na uul ak laaj lépp moo tax tiit bu demul woon fa bitim réew dina ma jaaxal su jógee foofu damay nuyu suma suma aada cokole borom dëgg ci cabax gin gi ak tuus gi lu muy tuuti tuuti lu mu gaaw gaaw mooy taxaw ci kanam géwal la dafa dégg borom Istanbul borom Turquie ah. waaw maa lay nuyu di la siyaar ñii ñoo ma xam ñii ñoo ma topp mbapat ñoo ma topp mbapat comme damay wax rek par exemple may toog jékki dékki jékki naan kara kara kara mënul bëre après daf may def ree xam nga àdduna dañ see nekk tekki nekku rek ci ngembu Sénégal ñi dàq football lekk ñu si football xaalis comprendre nga li ma lay expliquer kon ñun ñun ñi nga xam ne yàlla dañoo cërale ñu xaw a bokk ci ñi dàq bëre nag. te lekkuñu ci xaalis dañuy xam ne tekki nekku ci leneen xam la moo ñor boo soxlaa xaalis boo jëlee carte gab boo demee ci gab bi retiré yaa ma fekk suma kër fekk nga fi ma tëdd bakkane na yor soxna soo xam ne nii yaa ma gën a xam kon sant daal waaw ba ba ba na faaj jaajëfati toog muy dox mooy lan toog muy dox mooy di toog gaay di la jox comme sa ministre bi ni mu koy defee. yow yow yaa yow yaa ngi ni yaa dàq ñaan ci dëkk bi. kan man kan laa ñaan yow fu ñu daje nga ñaan ma dañ ko non man ministre bi sama kilifa la. dañ kaa seq ma ak moom. man sama manga yow dama ne da ngay déglu ma expliqué la. Mhm. damay bu dee toog muy dox yéen ko ci dàq. yaa may déglu ndax nii nii ba ñuy ñëw rek yaa ngi naan ma nii buñ paree ku may teral waa léegi waaw non dañuy waxtaan toog muy dox amul xam nga lan mooy toog muy dox mhm. ndax ñu muy dox ñu dañoo nekk ministre bi gi nga fii ki ñaan fonkul nguur bu yàlla mooy maye. Mhm. gis nga par force ministre de la jeunesse bii ñëw bii ñëw ñu ngi koy ñaanal ba pare na ñaanal man damay assumer su may mhm. man Pape Malick Ndour laa moom laay topp tey ak ëllëg ak suba ginnaaw suba neem ndax lan ku fekkul fu dara nekkul mu def fa dara ba tax fi ñaan daraa ngi fa yow gis nga Sidy Diop li ma joobe ci dëkk bi mu ñëw fi lépp luy biyee ma jënd dem taxaw ci kaw defal lu fa kenn deful kon yooyu bu amee bu ma gisee ku feebar mu jàppale ko ay nit di feebar ñu waree na opéré mu jël ay millions di ko samay loxo soxna si kooku bu ma ko jàppale ko kañ laay jàppale bu amee man sama temps la am ak samay doole su xewlee woo ma ma ñëw ànd ak moom campagne baa ngi nii Ford Fusion bu la ma jox man nekk ak loolu du toog muy dox nekku toog muy dox mooy ma toog sama kër mhm. waaye dama ànd ak moom si naaj bu tàng bi ñiy wax dañuy toog muy dox bu subaa bu leen beneen ministre woo na leen kaa ñu xaritoo ak ñoom ñu xaritoo nañ bàyyi soxoor gi mhm. fii ku sañoon am xarit ministre ah am déet ku sañoon am xaritu ministre ah. mhm. yee noonu la demee. am na solo waaye gis nañ ne comme ni nga ko waxee léegi eh, ñi ngi woon ci période euh, électorale hmm. am nañ président bu bees am nañ gouvernement bu bees gis nga bi nga bi nga bi nga jàngatee yow euh, président bu bees bi mu toogee gouvernement bi nga xamante ne teg na ko par rapport ak bi fi nekkoon ban jàngat nga ci am. man xaw ma xaw ma gouvernement bi mu fal waaye lenn laa xam. Hmm. man man bu fekkoon maay fal moom du toog. kan du toog. Bassirou Diomaye Faye. kon yow nekkoo woon parti Pastef. nekkoo woon déggoo li ma lay expliqué gis nga àdduna. Mhm. aw li tax gouvernement bi moom mu war a ñëw liggéey. Mhm. moo ñii dañuy far fii. Mhm. ñii far fii ñii ne du defar dëkk bi ñi ne day defar moo tax muy defar. faruma ak moom. waaye boo xoolee suma interview yi ma def yëpp. balaa may nuyoo dama naan maa ngi ñaanal président Macky Sall. di ñaanal Bassirou Diomaye Faye. di wax ne ñoom fañ nekk ci kaso bi. du seen kër chaque jour dama koy sama émission ne leen ku tuddee Ousmane Sonko doom wala jab Bassirou Diomaye tuddee nga ko ku baax tuddee nga ko ku yaru tuddee nga ko ñoo xam ne ay jullit lañ Bassirou Diomaye tey bu fekkoon jàkka ji imam bi ñëwul boo ne ko jiiteel dina ko jiite waaye baax nañ yaru nañ wax dëgg yàlla te ay jàmbaar lañ waaye faralu ma leen faral ci xol la waaye baax lañ waaye man maa leen faralul waaye boo bëggee dégg-dëgg ma wax la leen billaahi wallaahi ñoom dañuy liggéey dëkk bi xam dañuy liggéey dëkk bi Bassirou Diomaye dafa dëkk ci Euh, dafa dund galeer dëkk ci àll bi di bay. xam tool lu muy saf. jóge fa tëdd kaso xam li kaso di saf. ba pare nekk xale xam li xew ci dëkk bi. xam lekk ci rek meew. xam dem lekk bi xam lépp moo tax dëkk bi di baax. lu ma ko nag pare comme exemple farlu ma ko ba pare naan ay yàlla na échec bu échecgee ñun ñoo échec nee ma ndax lan mhm. man suñu kër kenn joxe lu ma fa dépasse man maa fay joxe dépasse man bu ma sañee yàlla na yàlla def mu wàññi ceeb beeg diwlin beeg courant beeg lépp ndax dëkk bi neex mhm. su ma ko ñaanalee musiba sama bopp laa ko ñaanal mhm. faralu ma ko waaye jàmbaar la yàlla na yaa ngi wax léegi léegi sa diggante ak ministre ex ministre de la jeunesse tey jii en tant que jeune soo toogee gis ñu falaat beneen ministre boo xamante ne peut-être bu ñu nee développement réew mi am na si wàll parce que bokk na ci li nga xamante ne moom mooy euh, pétrole ak gaz ak mine ak lu ni mel muy su Souleye Diop. Mm-hmm. mu def sorti daal di xamle ne yenn ñi nga xamante ne ñu ngi doon amal ay événements. di parrainer non Birame Souleye du ministre de la jeunesse. du de la jeunesse moom lañ fal wàllu pétrole bi ak mine beeg lu ni mel maanaam comme comme dëkk bi si loxoom la nekk mm-hmm. tey jii bu bu bu defee sorti en tant que jeune yow nga gis ko surtout jour bi nga xamante ne moom la nit ci gën a ñaaw lu muy jouru korité eh, mu daal def sorti ne li nga xamante ne da doon xew ci réew mi muy parrainage yi bokk na ci secteur bi nga xamante ne yéen a ngi ciy yëngu muy mm-hmm. làmb mm-hmm. des fois ñu parrainé benn kilifa benn autorité des fois euh, football bi def ko wala yenn célébrité yi am ay événement def mu ne loolu ci seen gouvernement ñoom du ci am képp ku ko def dañ koy daal di rejeté wala ñu delloo ko waaw mais àdduna gis nga nit wax ju ñaaw si nopp la rek wax dëgg yàlla ak yeneen bi ñoom Birame Souley man xaw ma ko maa ngi nuyu di nuyu euh, maanaam euh, président Sonko ministre yi mu fal yëpp. képp ministre bu mu fal ñu ngi lay ñaanal yàlla yéen bi oyof sa kaw. maanaam wax bu ñaaw ci déggin la. maanaam xëy na moom ba mu koy wax waxee ko noonu. ñoom tant que ñoom nee nañ dañuy defaraat. xëy na looloo tax moom mu ne. yaa may déglu bu ko kenn tuddee bu leen bu leen tuddee làmb bu ñu leen tuddee football bu ñu leen tuddee lii waaye accident la làmmiñ dafa am. moom nañ ko nangul ne carrément moom mën naa juum. ndax fan yële juumoon na fi génnoon na fi ba ne pale boo fa kenn lekk ndax ku fa lekk Macky Sall pasonné la. boobu dañ ko ko pardonné ne dafa juum. waaye juum juumaat boo juumaatee mën nañ jàpp na yow dafa moo ko tey. tant que kilifa la ci dëkk gi. te ñoom dañuy door a tàmbali. mu def accident a làmmiñ nañ ko ko jéggal. comprendre nga li la expliquer. xëy na ñoom nee nañ daa am lu ñu gis bëgg kaa defar li ñu wax nañ leen ko nangul. nañ leen kon nangul ne bu leen tuddee ngénte bu leen te ñoom moom sax daa gaaw wax balaa ñu lay tuddee da ngay liggéey dara ñu door laa tuddee moom defagul dara bañ koy tuddee na xaar ba mu def dara après gars yi ko waaye xanaa nekkul danaan salaamaaleykum rek ñu ñu tuddee ko. tuddee moom wax dëgg yàlla ak indi bi bu dee doom la dañuy xool juróom-ñaari bu dee ministre ñu xool nga tabax benn jàkk mbaa nga wàññi moom wàññeegul pétrole. moom na fexe bikit yi ñu doon jaayee xam ay temps da ngay boyal mu bañ sax yaa ne dugal ci bikit bi. dama jënd pétrole juróom indi ko moom na fexe pétrole yi ñu koy jaayaat ak yooyu. ñu koy ñaanal jàmbu gaz yeeg pétrole yeeg. affaire yi wàññeeku. moo gën commentaire yi même ministre bi dëkk Tëngéej démb dégg naa muy wax. mu ne moom tey lay def pas changement de service quoi. waaye ñaanul kenn ñëw mu ngi bëgg mu ngi ko bëgg a def avec secret mhm. moom bu ko neexee na ko defee seen biir kër wala biir néegam kenn bañ a ñëw na ko kenn bañ a yëg mhm. yàlla na leen yàlla defal jàmm daal mhm. te ma lay wax ni su ma xol laa ko tibbee billaahi wallaahi wa taalaahi pour ñu jógee foofu ñu xam ne ñu bañ faa taxaw yàlla na leen yàlla defal jàmm ñu yor réew mi si yor bu rafet ndax wax dëgg yàlla yin ci bu ñu ko yoree ñun lañ ko yoral comprendre nga pour ñu jógee foofu dem feneen ndax tamit Sénégal yi mu ci politique bi rek daal. Mhm. mais mais mais tey ñi nga xamante ne da nga bokk ak ñoom ëttu làmb. Euh, buñ nee Fadam tout xam nga ko buñ nee Bour Guéweul xamante ngeen. tey ji ñoom itam gis nañ gis nañ réaction bi nga xamante ne am nañ ko par rapport ak sortie Birame Souleye mais au retour dafa am ay critiques yoo xamante ne moom la leen nit yi di def ci réseaux sociaux. waaye àdduna noonu la tëree gis nga nit li lay jariñ bul nangu ku ko yàq. Mhm. comprendre nga li ma lay expliqué. c'est bi wax na ñoom mu jëlee leen leen naq moom ñoom ñu jëlee ko neneen wax. maanaam ñu leen di tontu ñoo ñoo ñoo war a xalaat na ñoom ci lii la ñuy jariñu ci la ñuy yóbbu dépasse si la ñuy liggéey kon bu ñu waxee bu ñu gisee man boo gisee man ma man tànk man man li su lay wax naqari na ma waaye tamit damay am maîtrise maanaam damay am maîtrise na tànk day door a toog te mu ngi door a juum dama koy jéggalaat ba mu juum su juumaatee ñu suul tànk yi wax ak moom ñee nag ñoom li ma mën a muñ ñoom mënuñu koo muñ ngala tamit gis nga dëkk bi daa lu ko yàq gis dara ne comme exemple booy boobu nu mu tuddati euh, kii fan yee ki génnoon ne day dem 100 ndax daa am yeneen gaa yu ñu téewoon. Karim Khour xaw ma Abdou Karim Khour xaar la tudd xaw ma kooku Baye Fall la gis nga gis nga chaque jour dama doon wax gis nga yanamaar fu ma laat yanamaarul waa kër gi kalax kawlax duñ ay yanamaar euh, waa ji nekk fee euh, kii ki nekk si assemblée Guy Marius Sagna sax du Y'en a marre mm-hmm. xam nga kan mooy Y'en a marre mm-hmm. Karim Xurxaar xam ma na la mooy Y'en a mm-hmm. maanaam gars yi dañoo muus dañ naan bu subaa sept heures pile nañ dañu assemblée dañuy grève bu ñu pirip ñu jox seen bopp zémi yi jàpp leen dugal leen si oto bi duñ leen dóor duñ leen saaga léegi nag booy nekk di dàqante xam nga ku maar nooy def da def ni booy di def ñoom mën nañoo daw fee ngay taxaw di sànni xeer di daw waaye ñoom bu ñu nee prix rek ñoom ñoo jox seen bopp policiers yi ñu sécurité leen sécurité dugal leen ci oto bi hmm. Abdou Karim xurxaar xaw ma xurxaar tudd xaw ma xurxaar moom day taxaw di sànnante xeer hmm. kooku échange yi nii li ñu ko war a a defal mooy yóbbu ko massage ñu hmm. massage kooku coono àdduna la dal kooku fan yee passé lu mu dañ naan dëgg la li dëgg la maanaam moom ñi doon xeex Sonko lañ doon xeexal ak Jomaay ñu bàyyi moom mu bàyyi bañ ne suba la julli mu ne leen nañ bàyyi ndax ñii ñëpp ñoom lañ doon xeexal bàyyi nañ ñun ñëpp nañ bàyyi ñooñu mais gars yëpp war a génn applaudir ko xam ne carrément kat kii góor la waaye moom boo waxee lu la arrangé ñoom ñu ne da ngaa baax nga waxu leen arrangé wu ñu saaga leen ndey mhm. léegi da dugg si restaurant fekk ñu defal maafe dooma daa yaasa su luxu mbalax mhm. mbaxalu saalum defar yëpp yow nga commandé mbaafe ba nga commandé maafe ba pare na yaasaak domadaak yeneen bu ko keneen jël pourtant yeneen yi ay plat préféré yu nit ñi bëgg mhm. yow maafe nga bëgg commandé maafe te nga xam yeneen yi mhm. Malick a ngi nii mhm. mën naa bëgg bëgg pizza aadaa ngi nii mën na bëgg mboroxe nuuru mbay mbaxalu saalum kee mën naa bëgg kee mën na bëgg bu mën na bëgg cere kii jóge dëkk Casamance nu mu tudd <laughs> bëgg Kouthia yow yow noonu la àdduna tëree yaa ngi nii ba ñu ñëw nga gis benn waaju di dox biir bi rëy nga ne man góor gu am biir bu rëy daf may daf daane addunaa <laughs> ngi noonu noonu la demee nañ nangu yooyu waaye nag gars yi <laughs> bàyyi toog ci ginnaaw euh, kii man moom de man moom mm-hmm. man ku ma saaga ndey mm-hmm. ma da ngay alerté man dama man déggoo li ma la wax ku ma saaga dama lay saaga mm-hmm. ku ma saaga dama ku ma saaga ma man man première saaga bi njëkk a defar ci àdduna def ko échantillon mu ngi suñu biir kër fii ma teg dama kaa tëj <laughs> xam nga man nan laa bëgg. Sénégal ku am looy wax wax ko si respect. Sonko bu liggéey ñu apprécier. Diomaye mu liggéey ñu apprécier Macky Sall ñu apprécier ko lu mu def. waaye boo ne exemple bu Sonko génnee sol yëre bu meuf nga ne Sonko yëre meuf la sol ñu ne la solul day lu meuf lu bëre la saaga la loolu doxulul dëkk. Mm-hmm. ci am na solo loolu benn partie la woon ci actualité réew mi mm-hmm. waaye Kara dañoo dañuy delluwaat tuuti rek si làmb mm-hmm. suñu waxee làmb gis nañ champion yi nga xamante ne ñi ngi fi yaakaar naan lu ci ëpp am nañ combat mm-hmm. mais dañuy ne moom mooy roi des arènes tenir tenir li nga xamante ne moom mooy couronne euh, naa deux ans loolu moom rek moom moo ko fi def moom Modou Lo jóge ci Ama Baldé ak Boy Niang gis nga dim leen daane jël yoo xamante ne kenn xaaru ko woon jël yu différent waaye ñu ne dénne waaye mu jël combat boo xamante ne ci digganteem ak Siteu la combat bi nag bëri polémique coow li bëri ñu bëri waru ko woon jël ko mbin la dañoo xamante pourquoi pas jëlul jëlul tafaatin tey en tant que champion euh, nga jékki-jékki ñu ne la affiche Modou Lo ak Siteu taxaw na. yee ñu ngi nuyu Modou Lo ñu ngi nuyu champion yëpp man moom yàlla dafa def yoo xam nga lépp. Mhm. man képp ku takk ngeen bu nekk champion. di fay ko cent millions cent cinquante millions suma su ma su ma mbokk nga. su ma la woowee téléphone di nga ma jël su ma ñëwee sa kër di ma ubbil. Mhm. su ma waxtaanee yow di ma dégg. Mhm. foofu dama fay profité di nuyu Modou Lo ndax yàlla dafa def chaque weer koor dina ma invité benn yoon ndogu quoi. dimanche bi passé maa ngi këram. Mhm. wax dëgg yàlla ak yéen bi mu nekk ku baax may nuyu ñaari soxlaam. waaye Modou Lo dama doon wax na ko gars yi sot sotoo <laughs> waaye Modou Lo <laughs> Modou Lo dañoo añ dañoo reer ba si àgg ne ko Modou mu naa ma ne ko barke Serigne Touba booy ñaa <laughs> <laughs> ak Ama Balde daa ne woon lenn lu dul lekk Modou mën a lekk Modou chaque jour chaque chaque weer koo dinaa ndogoo këram benn yoon mhm. waaye lu lu soxna yu togg moo koy ndogu moo koy moom dong koy lekk mhm. ak mën a lekk <laughs> bañu egsee mu naafi la naafi la ba pare teg añ bi mais ceebu ñebbe bu mel ne ceebu ñebbe Modou Lo bi loolu ceebu ñebbe roi des rek lay doon mhm. ceebu ñebbe ceebu ñebbe añoo la añoo mu nekk ku baax nag nekk ku ku ku yaru nekk ko am taalibe nekk koo xam ne nekk koo xam ne ku ma jox cër la ñu ñu koy nuyu waaye yaakaar naa ne kii jël na roi des arènes nu mu tuddati li Yékini jël na roi des arènes tee ko 15 ans kenn jëlu ko. kenn ko kon Modou Lo bu ñëwee. Mhm. def ko waaye taxaw na taxaw na nag. mën na ko Modou ba mu ne ma mën ko ñëpp li ma la yàggul de defagul sax ay 15 jours 10 jours. mën mhm. na ko Modou ñëpp nee nañ da ngay sa combat ak Siteu bi. ba xam du combine Moodu moo ma wax ma lay wax jàppal ne Moodu ko wax ndax mu ngi may dégg. moo na ma billaahi barki Seydina Muhammadu Rasulillahi. su ma demee bay combine bàyyi bëre ne ma karaa ma a ko ah ma man ni ma bokkal ndey ak bàyyi. wala imam bi ma bokkal kër sax bu jëlee ku jël ne ma mu ne ma man munu ma foo. mu ne ma karaa léegi léegi bu ñu doon foo dama lay jéem a gaañ mu ne ma mu ne ma man ku ma fool dama lay gaañ man munu ma foo. mu waatal ma Seydina Muhammad dama combinul. te Moodu sañ naa am ay supporters di bàyyi ñu koy daan. Mm-hmm. loolu loolu loolu loolu amul. mais ndax combat dàq ko woon. combat dàq. Siteu. Hmm. Siteu Modou Lo. pataakin ki dadantel pataakin rambax taa sakin. Hmm. rambax ce. Hmm. loolu rek làmb la. loolu loolu loolu kase làmbu la. mais mais mais par rapport ak. Euh, loolu dagg na billet feesal stade bi gars yi yuuxu waa après mu jeex. saa bëre. sans bëre sa day neex. mbata ki cër ki cër ki cër mbara ki cër ki cër. cam lam lam lam laa kees gees gees

waaye yow yow yow yow waxal leneen yow. ayca ma ne. gars yi yuuxu. Mhm. gars yi dagg seen yaram. Mm. cité cité la waaw. waaye yow waaye yow bàyyi ñu waaye yow. mais mais tey jii gis nañ Modou Lo par rapport ñaari ñaari adversaires yi nga xamante ne am na leen ni mu ci génnee. Mm. tey Siteu lan mooy avantage am ci combat boobu parce que nag Siteu. Siteu mbër la. Mhm. déglu ma fii Siteu mbër la. Mhm. Siteu ëpp na xoolal. Tafa Gueye mës egg cent kilos quatre-vingt-quinze kilos la doon bëreeg cent vingt kilos yi. Mhm. yaa dégg li ma expliqué Siteu mbër la. Mhm. yaa may déglu. Mhm. Siteu mbër la barki maam Cheikh Ibrahima Fall. bëre naag ku bëreeg waaw booy booy bi nuyoo bi xoolal na tubaab bi ndànk bañ a dégg bañ a nuyoo Sénégal ay taaj. ngay génn fii Siteu mbër la Siteu mbër la. Lac de la fi bëreel. Lac de Guiers moo mën ci làmb ji isa xam ne Sénégal bu ñu doon jor waa des arènes di xool palmarès Lac de Guiers a koy jël. d' accord ma nee ma ndax lan. d' accord day de ma kan moo dàq bëre ci làmb ji. Ah, may ma rek kan moo dàq bëre ci làmb ji. du ma wax kan moo dàq dafa mës a jàpp suñuy wax ku dàq bëre non dañuy waxtaan palmarès bu rafet bu tubaab ñëwoon. Mhm. tubaab bu ñëwoon ñu jël dossier làmb yi yëpp teg ko ci kaw table bi jox leen mu tëju ci ah, mu tëju ci làmb génn archive yi yëpp xool ki ci gën a rafet li palmarès ki ñuy kiy daanaate te kenn mënu daan moom mooy Thierry waa Sarr nañu waxtaan dëgg dañu waxtaan dëgg waaye làmb nag Balla Gaye da jël lem ko dugal ko ci poos bi ay temps waaye jamono ji kenn du Modou dañuy taxaw ci Balla Gaye gis nga digganteem ak Tapha Tine yaakaar naa ne bëre woon nañ ñoom ñaar tamit gis nga ni mu demee woon jëlaat nañ avance ba Balla Gaye jëlaat na avance wu ki nga xam ne mooy Tafatine tama Tafatine gis nga ko sorti bi nga xamante ne def na ko barki dee ma nga sa Côte d'Ivoire di waajal. daa am lu ma lay expliquer dama kuy bëre. Mhm. te say mbokk ñëwul da ngay dégg yi kàkk tàkk tout taret da nga laaj ma la koy wax par benn benn. ñëwoon kàkk yax bu fooq. Mhm. tàkk ndiggalu rëq. Mhm. mooy doxut taret mooy tubay ju teppeeku. ku bëriwul te àndoog say mbokk mu def noonu. Balla Gaye Eumeu Sène Boy ñaa Modou Lo xam nga drapeau chef de l'État ñun ñëpp ñoo nekkoon ñoo bokkoon benn hôtel bu nekk. Mhm. ba ñëwee carrément comme ça si ma chaque jour. Balla Gaye bu mu ñëwee appartement maa moom a ci nekkoon boo xoolee yaa ngi ko doon gis ñuy ñuy lido. mu tegal ma cinquante mille na ma saa boo. Mhm. boo ma gañee déedéet omee pion. boo omee benn pion jël ko waxul gañee ne omee. ku ñëw mu toog dóor la so ku ñëw mu dóor la saawam wax dëgg yàlla ak yéen bañ taxawee soxla Modou li tax ma lay wax ne man mbëri mag yi dañ ma jox cër. Mm-hmm. Modou dafa ñëw taxaw. Eumeu Sène woo na Modou Lo wuyu ko. Mm-hmm. Balla Gaye woo ko. journaliste yi woo ko man maa taxaw fee woo ko mu wuyu ma ma ne ko wuyu la Eumeu Sène. Mm-hmm. bu nekkoon dañoo seq ñaaw. am naa fekk problème sama soxna defoon naa fi mooy ba ma naan soxna rek. sama soxna demoon seen kër Modou moo ko dem jëli këram indi ko. ndeysaan mbëri dañoo nekk benn. waaye dama ne la ku àndut ak say mbokk parewul mu dalay waxuma la dalay waxuma la daan dalay blessé mhm. waaye Balla Gaye dafa am ay mbokk mhm. yee mhm. Balla dafa am ay mbokk ndax li amoon mën naa amaat li amoon comme non li amoon na dafa raxoon boobu ay mbokk tafaa ñëw ñu woon boobu Balla Gaye arbitre mu ne nii tafaa gisul ba tafaa def nii gisul dara tafaa deful nii mu ne ko nii jàpp ko daan ko combat bi nag ay tafaa ti daa am lu ko daloon da doon pare combat sans ay mbokkam li ma lay nii jamonoy corona bi la. Mhm. li may wax nii rus naa ko wax te Tapha di nga dégg dama woo Tapha Tine di waxtaan ak moom Tapha moo ne ma Kara ma ah, ne ma ba corona bi commencé ba tey chaque jour damay taal oto li commencé Bambey ba Touba dëkk lay dem par dëkk. Mhm. dëkk boobu dem si dem si penc bi. Mhm. bawol gi yëpp nag xam nga bee passé waa Réfane ñoo ko jëloon na seen moom donc. Tapha Tine moo ne ma Kara ma ah, par dëkk ak dëkk laay dem. fu ma dem jox leen sama bopp jubal. xam nga Tapha waa bawol ñoo jóg. bokkut ak bee passé. comme exemple seen kër cinq euh, cent cinquante millions musu faa dugg. cent cinquante millions dugg fa rek papaam exemple jël ko def ko sa poche bi xam nga puusoon ñëpp. bii nag gis nga boo bëggee xaalis jur cent cinquante millions dañ la koy jox nga jël cent millions yi teg fee. jël cinquante millions yi jox nuuru dix jox kay dix ne leen dem leen uti. Mhm. day tax ñu utali la ndam ndax ëllëg nga yokkal leen li nga la joxoon. Mhm. waaw bu cent cinquante millions yi mhm. ñëw boo paree ci ay lu may wax ayca am na solo mu nekk combat bu neex boo xamante ne euh, moom itam am mu nekk mu nekk combat bu neex xamante ne amateurs yi ñu ngi koy xaar mais man euh, karaatay euh, Balla Gaye ñëpp xam nañu dafa am si lu mu jógee ñu naan yàqu na yàquwul dafa màgget na bàyyi mënatul a bëre lu nekk ñu koy dégg mu jël tafaatin te gis nga tafaatin tamit jamono yi comme ni nga koy waxee dafa ñëw nekk tafaatin new look ñu gis ko ñu gis ko état bi nga xamante ne indi na ko ci digganteem ak Eumeu Sène da koo duma duma yi met door koo daan Balla Gaye tey ñàkk combat am supposé exemple laay joxe ñàkk combat am tey ci digganteem ak Tapha Tine lan la ko mën a indil ci carrière dara dara boo waree ba war ñeey loo war waraat la rek li ñuy jëlee seen bopp yëpp roi des arènes ñu koy wër te am na bala am na ko ba pare bu ko jëlee dañ naan jëlaat na roi daanee Tapha Tine dañ daanaat na ko bu ko Tapha Tine daanee ñu ne fayu na après fayu mhm. noonu la demee Tapha Tine ngay bu ko Balla Gaye daanee Balla Gaye bu ko bu jëlee roi des arènes dañ jëlati na ko mhm. mu daan tafaati ñu ne daanante na ko mu daan ñu ne un un mu jeex. bu daanee nag combat wu mag Modou Lo par exemple. tey man maa toog ak moom. Mhm. Modou moom nee na mayewu man man li ma lay wax nii si ay kàddu Modou laa lay wax nii de. Mhm. su ma nii la Modou nee na moom laaj dañuy toog sax dañoo toog ma ne ko Modou ba mu ne ma ne ko man dama ñu waxtaan sama waxtaan moom laay wax nii. Modou ba mu ma ne ko dama bëgg nga def si làmb lu kenn deful mu ne ma muy lan ma ne ko dama bëgg nga nga nga. nga bëri quelque deux combats fii ak deux ans trois ans bàyyi bëri mu ne ma lii deux ans trois ans bàyyi bëri man damaa ñaan yàlla bëri deux ans yi mat sax ba boo taxee ak moom. damay wax suma diggante ak yàlla. Modou boo taxee ak moom doo boo taxee ak moom ay loxo nga ko si si li ma la wax billaahi wallaahi wa taalaahi. Mm-hmm. man Balla bu bëreeg Modou Lo yàlla na Balla Gaye daan Modou Mm-hmm. waaye Modou boo taxee moom doo gis si moom mbër laaj ma looy gis. ay maanaam yow da ngay tàllal say loxo pour mu ñaanal la. billaahi wallaahi wa taalaahi. Mm-hmm. booy taxaw moom kii yàlla ngay gis moom yàlla leer ngay gis moom. Mm-hmm. nga gis mu respecté këram boo duggee jullikaay bu julli jotee day porse ñëpp julli kaamil yi taxaw mu jàng alxuraan nga xam ne lii. dafa jóge ci dëndam. te te te xalaatale nga juddu. fekk sa yaay nekk ko exemple nga nga juddu saw say famille yaay ñi nekk ay catholique nga ñëw gëstu. Moodu dafa gëstu. tari na fa benn saar boo xam ne nii man moo tax sama doom duñ dinañ dinaa leen rey rek ci alxuraan <laughs> am na sóoru bi muy wax wamaa fi xaa teg fii loxo yi barke Moodu xam na saar bi ba mu naafilee ba pare ma ne ko Moodu ba mu ne ma ne ko saari nga tari yëpp wamaa <laughs> <laughs> te yàlla man daal waaw ah, bàyyi ñu la eh, balaa ñuy jeexal karaaw yow itam euh, yaa ngi wax léegi ne làmbatoo mais yaa ngi faj say soxla mais nag da am ay supporter gars yi namm nañ la gëj nañ gis sa non man man moom pour pour ma expliquer la mhm. la da ngaa bàyyi wala xaalis lañ si wut mhm. te dama maanaam maanaam ndeysaan am nga xaalis non du am xaalis mhm. man da am nu may dundee man dund ma comme exemple karaa da am xaalis nga naan ay <laughs> aw damaa am de. yaa ngi sant. non non dañuy waxtaan dëgg te yàlla tax yàlla daa ñaan leen ma may leen. Mhm. su ma leen mayee sant leen. Mhm. man ba ma juddoo ba tey. yàlla fi ma taxawoo nii. Mhm. wax dëgg yàlla mosuma ko taxawoo. kon bu ñëwee dama koy sant mu yokk. pourquoi ma war a taxaw ma ne yàlla mayu ma. ah Assane Mbaye bu ma ko defee damay damay ah, billaahi wallaahi wa taalaahi. bi am na bu lakkoon léegi ma jooy. damay sant yàlla. léegi nag làmb dañoo ne li ma lay njëkk a wax ci làmb dañoo ne facteur de développement la làmb du facteur de développement làmb facteur de toroxalmaa la nee ma lu tax. lu tax ok. man li ma denc kenn du ko génne feefee. Hmm. promoteur dañoo mel na ñoom gàllaaj. Hmm. da ngay dajale ba yor exemple benn un million. ñu woon la la am nga combat. Hmm. avance bi balaa muy ñëw. un million yi nga yi. génne si ay sarax dem ci ay paa yoo xam ne ñoo tàq wax lu dul dëgg sol ay ngan di jëre <laughs> naan lay boo ko jàppee da ngay daan xoolal yéen xam ngeen lépp gis ngeen lu ma si deful amul <laughs> ay da nga da nga koy mbaxul saalum da ngay dem lu may xawaa koñ ma <laughs> yow da ngay génne say un def mm-hmm. pour daan mm-hmm. sa yaay teggin na tam jox la mm-hmm. Malick jóge Espagne may la dara sa waay jóge Istanbul indi la dara jox la ko Nuuru Jaay ñaari ensemble jox ko bu ñoo bay diir a jox la ko Assane Mbaye am lu mu la coppati Talla Mbaye sama goro ñu jox la. après nga daan. dégg lu ma de yow nga jaay nag yi nga am def ko ci combat bi daan def ci plus de 3 millions. yow jeexal nga sa yaay jeexal na ñëpp jeexal nañ. léegi nga daan xam nga looy wax. xam nga luy bëri fi su lamb ju félicitation. après nga war a utiwaat ay nag xontaat leen ñu jóg. sa yaay war a dajalaat benn natt kañ ngay tekki. mais boobu day fekk xanaa amoo jàppale. jàppale nekkul ñëpp ñoo am jàppale. mbër a looy def nga ne mbër ak. waaw waaw surtout man nag lee ma jot a denc du génn de wala ku may fay. nga fay ma lu toll noonu. Mhm. may door a ngeen mun na may bëri ak yow. Mhm. mais mais dama tamit te tamit dafa lu ma lay indil. Mhm. kenn mës dégg Kara dóor nañ ko mu daw. man li ma perte ci làmb yëpp tegal su may archive xeex gu bëri. mooy tax ma perte. ak yu bëri nit di ko topp di xeex di ko topp di xeex mu demee xam-xam boobu maa ngi ànd ak ay ñoom nuuru. booy ñooy taxaw ne xam lu lay conseil ay ñoom maali bu at bi nee prime nee ko cërëx saq sa ak étoile rouge <laughs> conseil étoile rouge. Ah. bu at bi nee prime nee ko cëq saq saq sa ne ko fële. <laughs> léegi yow bu defee yow fu mu nekk nga fekk fu mu nekk nga fekk ba sonn mhm. fekk yow ki nga bëre door indi ànd ak entraîneur am indi li mu am mm, waaw man kenn mosumaa dóor ma daw mhm. kenn mosumaa def ma dara mhm. man ba ma bëre naa ay at yi at yi at yi at yi at yi at yi at kenn mosumaa fay un million ba ma mosee ba ma mosee ñam làmb ci un million mooy combat yi nga xam ne bëriwu ma ko mooy yi ma lekk te bëriwu ma ko <laughs> sama combat kii lañ ma fay million ko te nu mu tuddati non non kii plutôt non non mama yaa mais mais mais sa diggante ak njaboot jaga sama combat ak naaru sokaas combat comprendre nga li ma l'expliquer su weesoo loolu ay yon compté ko nii mu nekk ay yon ba ma toogee ne bëriwuma laa ko yëg. mais sa digganteeg Ndiaga Thiam dañ ko doon wax ba affiche bi taxaw. Ndiaga Thiam dañ ma jox avance. fay ma prix bu baax. ma toog ak promoteur bi. mu ne ma après décembre bi ngay bëree. novembre la ma jox avance ma ne ko gëj na entraînement. mu ne ma noo dinga nga après décembre. ma ne ko bu fekkee après décembre bi la dinaa bëree. mu jox ma avance novembre ay 23 novembre. ba ma lekk avance bi après yow après novembre après décembre décembre la wala après décembre mooy janvier février mars mhm. après décembre même pas un mois ma toog lu ba un an mu entraîné ma jékki-jékki rek xëy na ma si biir décembre bi ne ma euh, damaa dem CNG uti uti date ñu ne ma amuñu date léegi na ngay bëri le 23 décembre. ma ne ko yaram ma ne ko yaram awra la mhm. <laughs> yaram da nga kaa war a defar mu xaw a dëkk yow yaa ma gën a xam bu defee yéen sa ngeen xaw a 15 ans la waaye suñu ko sama lii ne nii. léegi mais mais mais ba tey ndax bu avance ñëwoon itam euh, di mën nañ non boo bëggee dégg dëgg avance moom ku ma joxul ay millions du ma bëri doo bëri mais bu ay millions ñëwee tey itam amoo problème adversaire nga jël ko buñ ma kaay nag mënu ma fay def loo xam ne tey sama prix xam naa ko defuma fi loo xam ne dañ may fay ay million mais na damaa daan ñëpp mhm. waaye li ma yelloo xam naa ko tamit mhm. dañ li ma yelloo ma dama ne ku daw du jël njaga caam mhm. te bu bu loolu weesoo ñu génn ci làmb ju tuuti. Mhm. daa lu may wax Bassirou président Bassirou Diomaye Faye gis nga boo rombee euh, tëli géej gi. Mhm. boo jugee géejawaay. Mhm. nga ñëw ba kii bi nu mu tuddati. rond gàddaay bi. ba rond point apix dagg nañ feraawoo yi séddoo ko. boo bëggee am bës génneel lii. barke Serigne Touba dagg nañ feraawoo yi def ko ay cité seddoo ko. te kii. Euh, mooy loolu ngay cotiser par weer coopérative daa war am. fii da ngay dugg ci benn kër fekk ci ñeenti néeg fekk ci 2000 personnes. ñuy xar pour pourquoi boroom barke yi nekk fii nii jël gars yi yow ba nga xam ne yow fii ba muy bañ koy defar fekke woo ko nga ñëw ne yaa ko moom. dagg fay hectares yi hectares yi hectares. séddoo ko. te tamit ñu wax suñu yaay nekkoon ay Espagne ay France ak yëpp ñëw ba ci ginnaaw boobu si jënd fa ay terrain gars yi nekk Malika nangu nañ ko. te xamuñu luñ def am ko. Europe metti ñii dem di jëndi ay géej yi fii Kaolack di indi di jaay. Mm-hmm. ñii dugg ci mbobas bi di pare ñu jël ko jël jaay ko. Mm-hmm. dama bëgg lii nga génne ko dama la ko ñaan gi jëmmi seen ndax ndax ñi ñu sauvé dafa bëri. dama bëgg diggante. gàddaay gàddaay. côté Ahmed ay dara bi côté bëre moom waa géej waaye muumawuñu. Mm-hmm. waaye fii moom maa ci jël sama matukaay. dinañ ko gëq. gàddaay ba rond point. apex bi apex bi raasé xoolal te te li gën a garaaw lañ def dañoo dagg filawoo yi. dañoo dagg fii laa wuy terrassé ko def fa ay terrain teg fa ay nit ñu leen koy gardal ñu koy jaayee terrain douze millions vingt millions. te loolu li surtout di wax sa jama parlement exposé loolu du yoon. na ci président Bassirou Diomaye fay bassiru Diakher. te kii lee woon ne amul caaxaan. da ah, ciy ah, sant gi da cee boole mënoon na cee boole fay sax waaye mm. da ciy indi ay jaxeer jaxeer yu ñàng yooyu ay jaxeer loolu ngay xam ne kii amul caaxaan. billaahi wallaahi wa taala fii mën nañ fay def ay université. mën nañu fay def stade roi Baudouin yeneen hôpital CTO yi mën nañ kaa indi fii jege na géej gi te liñ soxla ci hôpital mooy biris yi di dugg maladie am na fi mën nañ fay def ay sapeur pompier mën nañ fay def leneen ak leneen léegi nag benn sant bu mu jël affaire bi def ko sa poste dee bàyyi fi say njaboot ñu lekk xaalis bi xalaatal mbëbës gi fii nu mu toll loolu ay milliards yi milliards yi milliards yi milliards yi benn nit bëgg kaa lekk loolu buñ ko nangu jóg ci nga lijjanti ko képp kuñ ko de képp kuñu classé déclassé woon affaire yi nga classé waat ko def ko ci guur gi. man nag ba tay ba suba ba ginnaaw suba. Pape Malick Ndour laa waaye li nga gis ni ñu war kaa dénoncé dañ koy dénoncé. damay bañ nga dagg lii lii dama bëgg nga dagg ko def ko TikTok nit ñi gis ko. ndax xam nga ngay sëfee. Mm-hmm. say moroomu yaay xam nga yow sa yaay fii la nekkoon di liggéey. Mm-hmm. kenn sa yaay dafa dafa liggéey tey wàcc xëy gaañu. sa yaay dafa liggéey ba ba wàcc. Mm-hmm. xalaatal ñu mel ne sa yaay liggéey dem yow seen kër dafa taawoon ngeen dëkkuñ fi mhm. sa yaay dafa liggéey ba sëkk ko da ngeen a tuxu rek sa yaay wàcc mhm. kon yéen yéen yéen yéen yow mii sax yow liggéey da war mhm. kon bu fekkee yow lii may wax génne nga ko di nga suivi mail yi am fii kër tañ nangu ko xalaatal nga dawal sa ranse wala nga dawal sa benn prado bu rafet ñëw fekk suuf su toll fii ba parcelle nga dagg filaaw yëpp di ko jaay lii bu ko bu ko président bi nangoo benn mandat lay toog barke seen Fallou am na solo balaa ñuy tàggoo ñu bàyyi gaay waaw maa ngi maa ngi maa ngi di la kontante di la nuy di la sant ndax wax dëgg yàlla génte bi suma rakk nga ku baax nga jigéen ku gëm sa bopp nga waaw ah, ku nangoo liggéey nga wax dëgg yàlla ñoo bokk man bokk ak say famille bokk say mbokk ñu dëkk nga nekk ku baax waaye tey dama ne émission yi ma mës a tourné ci àdduna billaahi wallaahi bii moom si daaxal ndax dama toog ñoo xam ne tey bu la neexee boo fay caméra yi kii naan la fàttaliku nga fii man ànd naa ñi bëre ji ay àll yoo xam ne nii ñu ne daara cubbu ñu ne drapeau surprise bëri nañ ñun def nañ lu ne ci àdduna te nag wax dëgg yàlla boo leen waxoon ne leen fàttaliku leen fukkaraa di fukkaraa daanoo ci mbapat ñoom kay dinañ ñu may lu neex rek ci yow loo xam ne bu nee benn balaa ñu koy fàttaliku waat dina ne ñaar léegi nag tànk dañoo am gan mhm. muy Malick ndeysaan xawoon na fee ngémb nag bëggoon na fee bëri waaye daa nekk mbër mu raté mhm. Malick ak nii dërëm mhm. <laughs> pourtant bokk la si Alboury ku baax la nuyu naa ñëpp di nuyu suma booy di ñaanal yàlla yàlla wax dëgg yàlla gént bi ñoom nii ñu dajee mm-hmm. boo dee wër ay xarit ay xarit laa la wax de mm-hmm. billaahi wallaahi taala jàppal ak ñii mm-hmm. dañoo dañoo bëggante ay ñoom njaga waaye yàlla na leen yàlla defal jàmm billaahi lépp loo leen bëgg seen ànd bi yàlla na leen ko yàlla defal kontaan naa si ñoom trop trop trop trop trop jaajëfati ah. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk internet Medina TV yëpp di leen nuyu leen siyaar yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm di baalu ak euh, waa Sénégal yëpp ak euh, fa la ñu jógee ca Espagne Barcelone suñu mbokk Modou Modou yëpp leen ñaanal yàlla defal leen jàmm. waaw di nuyu waa koñ bi Malika montagne bi di nuyu sama gaa yëpp ñi nga xam ne samay ami d'enfance lañ ñoo juddoondoo yarandoo màggandoo ñuy wax ci Kara moom moom ñu mën a wax si moom bari na waaw dañuy wax ne xëy na xëy na yàlla moo weddi mais ci làmb champion la war a doon ñu mu fi doon tudd sànq moom ci loo boobu la waroon bokk mais xëy na peut-être nit ki waaw ku nekk da nga am sa destin am na si yoo xamante ni propre responsabilité la euh, propre responsabilité am la ci ñàkk a nekk champion parce que li ñuy wax ni nit ki ki ngay ki lay wax dëgg moom nga war a jege mais tey jii fi ñuy tudd mbër yi gën a mag ci Sénégal fa la waroon toll xëy na duñ ci détaillé mais làmb dañ ko waroon tudd fi ñuy tudd Modou Lo tudd ko Balla Gaye parce que bu ñuy wax par exemple si mbapat parce que mbëri ci mbapat lañ koy xamee def nga lu ne ci mbapat man damay toog fu ne ci àdduna ñu naan kii mënul bëre dafa war a bàyyi bëre mais xam nga boo ko xamul mënoo ko xeetu bëre lépp lu bëre lu lépp mbër di bëre da koy bëre mais comme li mu wax jo ñu jox avance nga ne non mënu moo wala mënu maa ginnaaw suba xam nga foofu mbër nekkatu fa nañu wax loolu mais bu fekkoon yoon bi mu nekkoon mi ngi ci ba léegi heure bi ñu ngi koy dégg ci mbër yi mag yi vraiment muy nit ku neex nag koo xamante ni maanaam liñ mën a fàttaliku ci moom bëri na bëri na maa ngi fàttaliku ba yiy bëri bëgg a nekk booy temps ay affaire tul moo nekkoon ci bëgg ay tul toog benn su mbooloo toogee muy jël ay xam na ay paaka di dagg boppam mais du leen ko wax nag mais ma maa leen koy wax benn jour daa dagg fekk tul bi toj waaw mu yuuxu fa yuuxu yoo xamante ni comme xale bu ndaw buy jooy yëkkat bu yëkkatee biiram bi ne ngeen gis ko nit ku neex la liñ mën a nettali ci moom bari na mais xam nga comme que da ñoo bett ma bàyyi sama yeneen gars yi rek xam nga ñu sànni ci ay quatre fois